mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat euh, bu baax di leen euh, gërëm di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di leen ziar baax ci solution TV ak solution info TV di sant yàlla bu baax mu ñu may ñu mën a teewaat ci ndimbalam ak kattanam di ziar bu baax euh, waa solution yëpp Sanjogu Sonibu Assane Modou Ablaye Top Souka maa jigéen ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Kànj ak ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax ba ci Aïcha. tey jii ñu fas yéene waxtaanee réew mi ci trente minutes euh, crono di gërëm ñuy seetaan ñëpp nag di ñu suivre di commenter di wax seen xalaat di def ay suggestion ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax tey nag ñu indi mbir moo xam ne danoo xëy rek yam ci ñu ne radiation wu Ousmane Sonko ci liste électorale yi ab journal bind ko mais daf na rajation en cours maanaam ñi ngi ci yoonu dindi ko ci liste yi xam ne raje na la ak ñi ngi ci yoonu dindi ko lu tax ma indi ñaari leeral yooyu ci dindi nañ ko ak ñi ngi ci yoonu dindi ko ginnaaw ba ne tas nañ parti bii di Pastef ginnaaw ba ne tëj nañu Ousmane Sonko ginnaaw ba ñuy jël ay maire Pastef ak ay militant Pastef ku def ak ku deful ñu jiiñ la jiiñ gu rëy di tuuma gu rëy teg ko sa kaw si sama jàngat li wundu loolu mooy dafa am benn stratégie boo xam ne nguur gi da teg ak noonu Pastef yi parce que léegi booy wax noonu Pastef bu ci dugal rek nguuru Macky Sall mais da nga ciy dugal benn système bu taxaw pour rey benn kuréel gu taxaw mooy sama xalaat mooy dañuy bëgg a saper le moral saper le moral mooy tàyyalloo ak xooxloo ñenn ci Pastef ba ñu bàyyi seen loxo maanaam seen yaakaar tas parce que boo déggee ñu naan Pastef du jëmm ji waaye projet bi la ñi ngi ci yoonu rey jëmm ji rey jëmm ji mooy fexe ba Ousmane Sonko mi tax mi naan Pastef Ousmane moomu ñu tëj ko ci kaso bi ginnaaw bañ ko tëjee ñu ne naw léegi ràjje nañ ko maanaam bépp yaakaar bu nit am doon am ci moom ba tax nga mën a génn xeexal ko ba tax nga mën ko taxawu parce que ki ci biir kaso bi mënatul lijjanti boppam mais ñi ci biti ñoo koy lijjanti te daf ci bari ñoo xam ne seen gëm-gëm mooy usmaan Sonko mu neex mu naqadi day nekk candidat atum 2024 am na ñu gëm loolu mais état bi dafa bëgg raxas loolu maanaam danoo nekk ci li naan lavage de cerveau maanaam dindi Ousmane Sonko ci bopp yi ak ci xel yi maanaam 2024 comme ni ko Barthélemy waxee woon Idrissa Seck waxee woon mooy mën nga xaar 2024 2029 nga tenté sa sens maanaam 2024 maanaam mën na nu tudd xalifa mën nu tudd Karim mën nañu tudd ku ne mais Ousmane ko moom dafa war a génn ci jeu bi tey jii boo teewoon Ousmane Sonko bàyyi fi parti Pastef mu continuer di am ay activités. di am animation di def ay massification loolu ba léegi day jëmbat yaakaar ci xolu ñi bokk Pastef ndaxte yàgg nañ fee tëj ab leader ci àddina mais leader boobu di continuer di jëmbat yaakaar ci nit ñi gis nañ fi Nelson Mandela gis nañ fi ku ci mel ne Lula da Silva Brésil gis nañ fi ku mel ne Ama Amadou Niger bu ñu doon limtee ci àddina du jeex boo demee bay ba Russie sax ba am na waa ji naan Navalny 19 ans lañ ko tëj mais ñi ànd ak moom. ba léegi danoo gëm ni waa ji mun na doon dara ëllëg parce que appareil moo ko téye léegi nag fii yamuñu ci jëmm ji mais danoo ñëw rey appareil bi maanaam yaakaar boobu ñuy am ci nit ñi un leader même bu nekkee ci kaso bis mun na ñëw mu nekk dara yaakaar boobu lañ bëgg rey ci ñun léegi nag ñi ànd ak Ousmane Sonko doon ay patriote gën gëm projet am ak kii foofu lañ warul daanu mooy bis bu ne ñu indil leen benn mooy waa ji waxuma la nekkatul waaye partem sax nekkatul mais waa ji bu doon ni sax tey jii génn na di yor parti sax mënatul doon candidat parce que raje nañ ko kon boo leen xëyee dégg ni génne nañ Ousmane Sonko bu mu leen bett mais dañoo bëgg bu génnee du fi fekk dara te loolu lu jafe la nag loolu est-ce que mën na ne parce que mbir mi la ko tëgg tasu ko wala fi dañ na yàlla nga dee taxul nga dee sa noon na la yàlla nga dee taxul nga dee sa noon na la yàlla nga torox taxul nga torox kon nit ki mun nay def pexem mais yàllam ak dogalam parce que wala fi dan ne maanaam euh, euh, béjonu béy wala nag ba muy dëng fi la ko mag ñu fekkoon dañ kee mënul dara yàlla mi tàggat Ousmane Sonko tàggat Pastef ba mu toll ci niveau bi ba nguur gi ci lu toll nii parce que lu tax ma gëm lool ni danoo bëgg a sappe la moral découragé loo les troupes parce que mënoo tëj ñëpp kaso même boo leen doon tëj kaso yi attanu leen mënoo leen rey léegi qu'est-ce que tu mooy fexe ba rey yaakaar ci xolu ñenn ñi ñi nekkoon ci diaspora bi xam ne bu Pastef ne yëngu leen ci lii ñu yëngu ci ñi nekk ci réew mi bu ñu jaayee bracelet ñu jënd ko bu ñu nee lii léegi nag ñooñu ñëpp tey jii bu ñu demee ba jàpp ni parti bi amatul mais Sonko amatul Sonko amatul nag li muy tekki mooy mën na fee ne te nekku fi mooy waa ji ngeen yaakaar même bu génnoon mënatul nekk candidat waxuma la candidat atum 2024 mais 2029 sax waa ji mën na ko ba a doon candidat. parce que bu nee rajje nañu nit maanaam kooku nekkatul électeur mënatul fal mais mënatul fale kon kooku jëmbat ci moom yaakaar erreur la kon yaakaar leen bëgg rey ci xolu ñi bëgg son ko waaw te yaakaar boobu pour man warul tas ci lu bari te jamono ji nga koy def da ngay sentir. ay étape la chaque jour ñu teg dara jàpp nañ ko tëj nañ ko barricade nañ këram tey jii ñu mu doon àndal ci yeew yi nee nañ tas nañu yeew yi fexe nan sax ba bu Ousmane génnoon sax coalition bu ko war a gunge sax mën na fi bañ a ne parce que bu Pastef nekkatul mais am na ay parti yu ko mën a gunge boot ko ba yóbbu ko fi mu jëm mais loolu leen bëgg rey ci xolu nit ñi ya ya rey ko ci xolu askan wi mais aussi laver seen cerveau ba jëmm jii du Ousmane ko moom yaakaar day tas ci moom ni moom mënatul doon dara dara dara dara dara dara ci politique loolu doonoon rek leeral boo xam ne dafa dikk ci lii di information bi génn tey ñu naan radiation en cours mi ngi ci yoonu ñu koy raja radiation mais radiation boobu lu tax ñun ñu am ci problème mooy bu dee ci mbirim Mame Mbaye bi xam ne moo gën a probable pour ñu daan Ousmane Sonko mais mbir mi ma ngi cassation àtte bi daanagul l'appel est suspensif ñu ñëw ci mbiri Adji Sarr waxi compte max ñi am xam-xam ci réew mi yëpp te fooy wun waa réew mi xam ne nit mën na am xam-xam ba pare di fooy waa réew mi li ñu wax mooy compte max boobu daanu na ba Ousmane Sonko duggee kaso loolu ñun duñ sax werante ci wàllu yoon ndaxte nag ñun wóolu yoon ci réew mi ñii du dundal yoon ba pare tegu ci yoon laa wax xanaa mën nga di woote yoon te teguwoo ci yoon mais ñii woote yoon te tegu ci yoon ñoom ñëpp wax nañu wax boobu mooy compte max bi daanu na kon mbiri aji Sarr mënatul téye Ousmane Sonko ci lu bari ñu indil ko mbiri appel en l'insurrection indil ko trouble à l'ordre public indil ko en entreprise terroriste ñu jële ko 2021 ba deux mille vingt trois bii ñu ne ñu ne lépp loo xam ne bàkkaar la woon ñu def ko ci wàllu politique ay nit faatu ci ay yàqu-yàqu amu ci Ousmane Sonko mooy ki sooke loolu ndaxte moo doon wax naa nit ñi jug leen bañ leen waaye itam fépp leen kon lépp lu ci am mooma ji nga huit chefs d'inculpation yooyu ñu ko jiiñ moom Ousmane Sonko ba léegi ci sappe moral bi ma lay wax maanaam da ngay dégg ay juriste la. yi ñu ko teg yépp moom Ousmane Sonko jiñ ko ko bis ku ko attee mun na sax ba tëdd perpétuité maanaam perpète maanaam tëdd sa giru dund ci kaso di nga fi nu yóbbu yaakaar mooy waa ji bu leen ko yaakaarati kii moom na nasax na dee na kii képp ku jàpp ci moom jaratul sax benn xale di génn ci mbedd mi jaratul sax nit di rey boppam ndax moom jaratul sax nit di wax ci moom ndax yéen seen waa ji ngeen yaakaar waxuma la radiation waaye li liñ teg ci moom rek laa la wax même bu Pastef amoon partem amoon ay militant am ne li liñ teg ci moom rek buñ ko ko tëjee balaa muy génn day xobi daas di nga li ñuy def suñu bopp yi pourtant ay tuuma kese la te loolu ñu wax ni atum deux mille vingt et ak tey jii mais deux mille vingt et bi dëkk bi yëngoo fi ay xale faatu fi di nga suñu borom yàlla rek moo mën affaire li Thione Seck doon wax bari na fi tey jii ñu naan san ko nan ko topp li xew ci atum 2021 ak tey ji pourtant ñoo ko setaloon ci nan Macky sàll bi mu génnee ci jamono yooyu lu mu waxoon mu ne xale yi li leen génnee mooy Covid bi la danoo ñàkk liggéey danoo ñàkk liggéey dëkk bi moo metti vie bi moo cher moo tax xale yi génnoon kon Ousmane Sonko génnewul woon xale yi xale yi leneen moo leen génnewoon ñoom ñi ñoo ko waxoon ah, du samay wax de ñoom ñoo ko waxoon ñu dégg ministre Malick Sall bi yoroon justice mu ne noonu ñi ay mbër la woon ay mbër ay mbër ñoo génnoon parce que dañoo gëj a am combat moo tax ñu génnoon di manifester moo ko waxoon de moo ko waxoon ñu jékki-jékki Aïssata Tall Sall na force obscure xam nga force occulte mais loolu du lu nit mën a teg bët ak lu ñu xam maanaam yooyu ay fort furtu la maanaam loolu la ko tubaab di waxee maanaam ay wax la yéen yi wax rek léegi di la xalaatloo kon ba léegi du Ousmane Sonko parce que dañ nag ñeneen ñoo jóge feneen ñëw def lii ngay lim ministre yi ba ci ministre affaires étrangères ci jamono yooyu la mu waxoon kon ñoom ñii naan Ousmane Sonko atum deux mille vingt et ak tey jii li fi xew yépp moom la ba koy lëkkale ak mbiri terroriste ak ñoomin seen mais ñoom ba mbir may xew waxuñu loolu kon ñoom Ousmane Sonko bu demoon taxaw ci kanamu tribunal mën nañ génnewaat vidéo yooyu tegaat ko na leen du lu yéen a waxoon lii léegi lu tax wax ji war a soppeeku tey jii kon il est présumé innocent te 2021 tey jii li fi xew bari na Ousmane Sonko bi leen fàtte nii 2021 bi ñu koy woow mi wuy ji ci mbiri Adji Sarr naam dafa amoon immunité parlementaire mais Ousmane Sonko bañul woon dem de. Ousmane Sonko dem na ba ci yoon bi ñiy gaze ay journaliste ak di gazé ay militant naan ko yoon bi ngay jaar wala yoon bee ngay jaar man bu ma waree dugg ci buntu solution bi man saa njóogu fu may jaar du fi dugg lu ci yoonam <laughs> na ma bàyyi ma dugg rek mais bu ma bëgg neen ci kaw étage bi ngay jaar ak ci douche bi ngay jaar ak ci lii bi mi ngi créer problème mais 2021 na ñëpp xam ne Ousmane Sonko ba muy xëy di dem di wuy ji ku dem jàmmam la doon ràcc léegi nag la ca xew ca ginnaaw mooy jaaral fii jaaral fee ñu gël ko na ko kattan mu tut li xew ci réew mi xew 2021 ñu ne Ousmane sonk moo yëkkati woon booy yi ba ne boo déggee tuuma yin ko teg mais 2021 Ousmane sonk ci kaso bi la ne biñ ko jàppee dañ ko téye biñ ko téye lépp ci ginnaawam la xew waaye waaye bu dee réew mi am na yoon yàlla na Ousmane Sonko am ay avocat yu baax man mi dul avocat sax lii mën naa ko défendre mooy 2021 mi ngi ñu tee moom Ousmane Sonko bi mbir yi xew lépp ci am la xew te bi mu génnee la cooli fay ndax bi mu génnee la kilifa diine yi wax xale yi ba ñuy taxaw fi naan pale pale pale Ousmane Sonko moo taxaw mu ne leen Macky Sall moo jiite réew mi ba atum de Macky Sall moo jiite réew mi ba atum 2024 te ju nangu la xew Mali wala xew feneen di xew ci réew mi kon nañ ko bàyyi mu jiite ba atum 2024 bu 2024 jotee mu jugee fi il faut que ñu fàttali ay discours Ousmane Sonko ci mars deux mille vingt et un léegi nag bu nu bëggee jël loolu lépp saf ko ko te ñoom ñi ko safa ñoo ko yenni bi ci mujj mooy yàggul bi ñu dindee barricade yi Abdou Karim Fofana moo taxaw fii ñëpp di ko dégg mu ne defatul appel à l'insurrection moom Ousmane Sonko defatul appel à l'insurrection nu tëj la sa kër cinquante cinq jours. mais waa ji yi ñuy wax nitu fitna ma doon nitu fitna dëgg-dëgg ñu tëj la cinquante cinq jours musoo wax say militant ni xëy xëy leen ñëw dindi barricade yi mosu ko wax man de musuma ko dégg bi nu wootee ci stade Amadou Barry bii pour war def seen investiture mais waa ji mosul taxaw mu ni leen def leen investir ci force daf leen tëgg leen ay concert de casserole kon ku dem mi ngi doon ràcc jàmm ci lu bari loolu tax huit charges yi ñu ko teg te li yeneen li tax ñu yenn ñu war ko yenn wir charge yi mooy Juan Branco charge yu toll noonu lan ko teg teg ci nag teg sax lu gën a diis Juan Branco Juan Branco moom xëyul ñu dox ko contrôle judiciaire liberté provisoire na ko demal mais li gars yi di wax dëgg la fu ñu bàyyi Juan war a bàyyi ñëpp nu ñibbi parce que liñ jéem Juan jiw ñu ko kenn liñ jéem Juan jiw ñu ko kenn kon. lii ñi ko tuddee harcèlement harcèlement wala ñu tuddee ko acharnement juumuñu singili la jëme ci nit l'œuvre humaine nag n'est jamais parfaite kenn du wax ni Ousmane Sonko def musul def erreur politique musul def erreur ci wàllu communication on le dira jamais loolu duñ ko wax parce que nit la nit day juum day def erreur te nag nit ki boo koy topp di ko ut bu yàggee nga jot jikkoom Ousmane Sonko daan wax di waxe jikko di waxe yëg-yëg parce que dañ koy tànc ci miir bi ba mënatul dellu ginnaaw mu génn am nu mu waxee mais loolu est-ce que dafa war a tax ñu ne waa ji terroriste la est-ce que dafa war a tax ñu ne waa ji def ko tumboseur la est-ce que dafa war a tax ñu ne waa ji ab bandi la est-ce que dafa war a tax ñu ne waa ji du ku baax te li may wax yépp duul wax joo xam ne maa ko créé ay fel la yoo xam ne ñun ñëpp doon ko dundaloo ku toog fii tey wax te yàlla tax rek mais mun nga wax li ma wax te lii lu nu dund la ñun fekkee ko. te yàggul ci mars 2021 ak tey jii koy jii jëmm jooju tey buñ demee ba ne tey jii noonu nan ko rajee jëmm jooju tey jii bu demee ba ne nan tas parteem mais tasparti pour lan yamatun ci jàpp ay ne mais rafle la def rafle maanaam ramasse li am ci réew mi léegi ramasse la parce que 700 personnes léegi ñu jege 1000 mais ñu waxante dëgg ñoo ñëpp mun ñu defandoo ñoom ñëpp mënuñu defandoo ñoom ñëpp mënuñu def ay erreur ñoom ñëpp mënuñu def ay bàkkaar te 700 personnes yooyu ñu jàpp mais am na ci ñoo xam ne tey jii même bu ñu defoon da leen war a àtte bu leen di tëj tëj leen bu leen di bàyyi bàyyi leen mais dinañ ci dikkaat ci kanam moom la ñuy tëjee léegi nag li dal Ousmane Sonko ginnaaw harcèlement acharnement mais trahison trahison boo xam ne. man dara bettuma ci wax nañ ci yeewi askan wi man yeewi dam dama ci mës am ay doute man duma la nëb dama ci mës am ay doute pour plusieurs raisons tey ñi ma ci daan waxal xam na li ma doon am na ñu ci sax ànduloon ak man mais tey jii gis ne lu mu jur foofu nag Ousmane Sonko lii dal nit ku jub nit ku dëggu nit ku dul war yëpp mun na ko daal parce que boo dul naxaatee da ngay jàpp ne kenn du la nax boo dul fen da ngay jàpp ne kenn du la fen boo dul trahir doo jàpp ne kenn du la mais loolu nag nga mel ñeneen ñi nga jàkkaarloo meluñu ko li xew ci ville de Dakar nii bu ko xel nangoo sax ngor da koy bañ li ñoom Barthélemy def démb mais loolu kenn xamul lu mu doon ci àddina moment bi sax baaxul pour ñu def ko man bu doon ay mi même bu waree am Abass Fall war a jóge ci premier adjoint mais nañ ko pousse ba jëmmi jamono. fii weer ñu xool comment va faire mais lépp ci benn semaine mooy tëj nañ ko jàpp nañ ko radié nañ ko tas nañu partem léegi adjoint au maire ville de Dakar démb dama dégg benn waay mu ne lii lu jaadu la lu war a am la pourtant Abass Fall bañu ko bañul li xew ca ville de Dakar mais nin ko defee moo ñaaw ak moment bin ko def parce que nag nit ki. mun nga koo dóor ba mu dee mais xanaa danga koy suuli mais doo ko dëggate mais dafa mel ne danoo rey Pastef ban na dee na ñu ne kan koy dëggate tubaab yi dañ koy faral di wax naan on ne tire pas sur une ambulance dama mës a dégg El Hadj Seydou Lamine Niass ñu posé ko benn question ci nit mu ne du ma ci wax ñu ne ko lu tax doo ci wax mu ne on tire pas sur une ambulance parce que nit daa am fi muy toll loo ko bañ bañ bañ bañ yërëm ko mais bu ko tegeti yenn yi. bi yoon waxee ni danoo war a respecter ville de Dakar lu tax mi jëfewu ko woon xaar ba tey mu koy doog a jëfee xaar ba tey mu koy doog a jëfee parce que danaan Pastef est affaibli affaibli parce que Ousmane Sonko mi ngi en prison mais ñi ngi jëw Ousmane Sonko te man dama jàpp ni c'est de la lâcheté parce que xaar ba nit ki nekk prison ngay def ci ginnaawam lii. li tax bi mu fii nee ngay jàkkaarloog moom tête à di ko xool mu lay xool defoo loolu kon dañ kaa ginnaawu dañ kaa ginnaawu poste adjoint au maire nag du dara mais bu ñu demee ba ne la xam ne li naan dil bi nekkoon ci dialogue bi dil bi dafa fës nag léegi te démb lañu eggali dil bi biir ville de Dakar booy xool parce que bu ne la Seydou Gueye bi ñuy njëkk a def bureau bi Seydou Gueye bi nekkoon nekkal candidat dafa bañ. démb ñu jël Sédhiou Gueye def ko dixième lu waay bañoon daaw bu ko nangoo ren am na lu xew ci diggante bi wante dëgg Sédhiou Gueye nan la mën a léegi mel na mu rog soo ak Barthélemy ak ñoom it seen te pour pourtant dafa géddoon bureau bi waa wallu yu dugg ci bureau bi mais waa wallu kañ lañ fi kañ lañu neex ak Barthélemy à ce point te bu ñu wax wallu PDS a tax PDS liñ teg Barthélemy Dias mbiri Ndiaga juuf dugal ko kaso ba Macky ñëw génne ko Sonko tegu ko ko Sonko teraanga rek li jib ak Barthélémy Dias tey jii bu mënee mu leen muñalanteeg waa PDS ak waa APR te liñ ko teg ci fukki at yi moom Barthélémy Dias mus Ousmane Sonko de daj na lu Barth dajoo mais Barth daj na lu ne ci politique te ñaari nguur ñoo ko teg nguuru Lay Wade ak nguuru Macky Sall Barth dem ba tey mën a saafonteeg ñii mën a nekk ñi ñii mën di matlaa ak ñoom. mais ni nga mën a matlaa wekk ñooñu noonu ak li la teg yëpp ci addina yu la Dias mais matlaa boobu boo ko matlaa woon ak Ousmane Sonko Abass Fall mais doo leen egg fi doo egg fii mais wala fi nag dañ ne ku war ren ba déwén mu jigle dal la ko jiñ waaye du yow mais mbir yi mënoon nañ ko rafetal jëkkal ko mais moment bi baaxul fii nag fàtte xaju fi parce que ku ñeme da laa Xalifa Sàll bii ñuy wax nan kàndaale fii wala fee Barthélemy Dias fu ne mu taxawal fa Xalifa Sàll mais Xalifa mii mais génn na kaso ba ni muy dugaati ci poli Xalifa Sàll m ñoo ko dugalaat ci géew bi génn na kaso ñemewul sax def conférence de presse wax ak sénégalais wax leen lan moo xewoon ci kaso bi ak mbiri caisse d'avance malgré ki ñun ñii ñëpp dañ ko doon soutenir mais bi mu génnee part la def kenn xamu ci lu mu ne lu ne ñu jiiñ ko ko koo xam ne demoon nga ba egg ci niveau bu la Macky Sall say di la jaale ji say mbokk di la jaale ji say mbokk doo ko sax xool Barthélémy Dias mi jaas njaal moomu da ko mettit lu woon da ko mettit lu woon est-ce demoon na sax moom est-ce que bokkoon na ci ñiy recevoir Macky Sall pour mere ko tey bu ñu demee ba egg ci niveau bi un Barthélemy Dias mel na bëgg a judduwaat mel bëgg a mel noo xam ne xamee wuñ ko woon ñun dañuy poser problème mu xalifa ñun ni ñuy ja waxee ci Sonko noonu lañ doon waxee ci xalifa parce que li nga ko teg ànduñu ci woon mais xalifa sàll Macky sàll tey jii li mu ko teg ci àddina dem ba futti ko dem ba Khalifa sàll chef de quartier sax mënatu ko woon doon ci réew mi te lu ne mu doon ko ci réew mi te àndal ak man ma ñàkk ànd ak yow rek moo ko juróon. jële ko ville de Dakar jële ko ci poste député am Khalifa Sall bi mu duggee kaso bari na ay mbokkam yu faatu bari na ñuy wax fi demuñu sax jaale ji ko tey ji ñooñu la mën a saafoon teel di wan ginnaaw Ousmane Sonko mais waa yeewi buñ ko dàqul woon sax moo waroon am ngoru jóge yeewi waroon am ngoru jóge yeewi askan wi dem yoonam mais tey jii buñ fi bëggee taxaw du duñu gëmloo yenn yi mais yi mënatul doon seen alal même ñoom bu ñëwoon sax jël yeewu waaye yeewu war a am ngoro dem baleen fa parce que am na ñoo xam ne ku làng ak ñoom jël ndaare parce que am na ay pratique yoo xam ne ci àddina même bu ko xel nangoo ngor da koy bañ pourtant ñu ngi koy def mel ni ki kokkali Ousmane Sonko te tey jii Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi lan moo gënoon a jekk ci Khalifa Ababacar Sall mu naqarlu jàppi guñ ko jàpp ba pare naqarlu lii di grève de la faim bi waroon na bokk ci ñi koy ñaan sax mu bàyyi ko politique élégance la élégance parce que danoo nekk ci adversité mais nekkuñu ci animosité mais lii noonee la ak mbañal goo xam ne kenn xamul fu ñu ko teg ñoom ñëpp mënuñu ko justifier li dal Ousmane Sonko mënuñu ko justifier parce que bu ñu demee ba dëkk bii mel na Gambie Gambie gi mais yaa Jammeh lan la deful Gambie ak lan la tegul Gambie ci àddina parti Yaya Jammeh tasuñu ko ba léegi parti mi ngi existé ba waa Gambie am ñu jàpp ni ba Yaya Jammeh bis mën na ñëw mu dellu ci vie politique bi en Gambie mën na ne pourquoi Adama Barrow bu ñëwee tasul parti Yaya Jammeh élection yi ni mujj est-ce que sax ànduñu ñaari parti looloo tax waa taxaw yi war nañu teey ci mbiri Ousmane ko parce que il n'est pas encore moor am na ñoo xam ne immortel lan dan fi ne ba faw mu neex la dañ fi ne mu naqadi la dañ fi ne léegi nag suñu borom dafa bindee seen ko yoon ay nattu nattu natt la tubaab nee na la récompense elle est au bout de l'effort nit ki ana lu mu am ñu ne ana lu mu daj fii koo fi gis ñu koy tudd rek ci ay nattu la jaar ba egg fi mu egg mais daa am yoo xam ne tey jii même ñoom bu jaadoo ñu war a defaraat bureau municipal bi mais assemblée nationale amul parité le bureau bi respecté wuñ ko ñaata meer ñoo fi nekk fii seen bureau respecté wuñ ko tey jii bu xale Barthélemy bu génn di gëmal ni moom day yoonal yoon danoo war a laalaat bureau bi lu ne ñu dugg ci léegi nag li may ñaan ñoom Abass mooy buñ gedd doon toog ville de Dakar seeni conseiller bari na mi ville de Dakar di assemblée bu ñu fa gedd dara nan toog fu nu wootee ñu ñëw toog lu nu war a wax ñu wax ko fa politique seize vide fayul dara moo tax ma buggoon bëggoon Ousmane Sonko dem jaloo sa sëñ Mbàkke soxna doon na ko wax xaw ma Serigne Cheikh bañ sa bañukaay ba fa ñuy toog fa laay toog di ko xeex politique rapport de force la doole pour buuxante la kon ñoom nan des ville de Dakar même bu dee nekk ay conseil rek seen nombre de conseils yu ñu am dinañ bokk ci ñi déterminer liggéey ville de Dakar te fii réew mi lu fi waaye di def na ko xoolaat ko rek damay déglu benn waaye Xarim Bamba Diagne mu koy wax nguur goo xam ne six mois amoo ci des bal bi mun na tourner ëllëg tout peut arriver demain parce que Ousmane Sonko mi bu faluwul ten mooy fale fu mun a booy joxoñ booy booy topp bu faluwul tam mooy fale bu dul roi mooy faiseur de roi kon kooku boo koy lebal da nga koy lebal jàmm da nga koy lebal jàmm bu baax parce que en politique tout est possible mën nañ xëy suba moom yi am lu xew Macky li mu jàppoon yëpp mu ba ko parce que Macky Sall c'est un homme imprévisible en politique bi muy fal Amadou Mame Diop fii kan moo yëgoon ni mag yi Mame Diop lay fal <laughs> du mu naan du ma troisième mandat ku yëgoon Macky bi muy taxali ko Ablaye Wade ku njortoon ni Macky dina taxali ko Ablaye Wade Macky bi muy nekk président Sénégal ñu bari noo jàpp nu ko ne man korog damay seetaanaat ay campagne yu Macky Sall Macky Sall comme nit yi Sonko am ni Macky Sall amu woon Macky Sall dafa mel ni miracle moo ko fal loolu mbiri sunu borom la suba lu ne mën na xew ak grève la faim bi Ousmane Sonko nekkee mais Ousmane xajul ci xajul ci xajul ci kaso lu tax mu mën a génnee le ministre de la justice ñaat nit ñoo fi yàgg def grève de la faim ministre de la justice génnul Ousmane def ko semaine mu génn di wax kon grève bi def effet parce que xam na ni waaj du caaxaan waaj du xajul ci kaso quoi Ousmane Sonko xajul ci kaso gars yi mën nañ génn nii rek nga foog ni lii fekk le fekk mu nekk ci kaso di def grève de la faim da leen enchaîner da leen déranger moo tax ñu génn di wax di dalal xelu nit ñi léegi nag grève de la faim boobu nit ñi di wax grève bi metti na waaye bu dee danga jàpp ne lu la teg du dëgg nga jàpp ni ñu ngi ko séqal mën nañ egg yow fu ne ku ci mel ne seex Bara Ndiaye mais qu'est-ce que tu parce que yóbbu na la ci yoon yoon setal la ba mu set wicc léegi nga war a nga war a ñibbi sa njaboot xamatoo lu la fa téye tey si suba dafa am benn baat bu ci émission Jomet ak ñoom Sandiog ak Soy bu lii nijaay baar Baara wax mais li mu wax noonu man Cheikh baar wax na ma ko mais daa loo xam ne doo di ko wax parce que nit ki am na ay mbokk loo ko jege jege ay mbokkam gën a jege na wax yoo xam ne mënoo tëb di ko wax ni mais loolu Cheikh Baara ma ko wax baar bi muy dugg ci grève de la fin woo na ma mun ma Omar ma li man dama ko aye man dama ne ko ànduma ci pour être honnête pour plusieurs raisons loolu nag samay raison la mais bi ma waxee après je me suis dem naa sax wax ci ak soxnaam mais grawul mu ni ma Omar ñaar rek mu mun damay màggali Touba ci ñaar mooy doon néew wala ma doon sëriñ boo xam ne damay dem màggali samay taalibe jàkkaarloog man mais màggal bu ma fekk ci kaso bi tax man xam naa Cheikh Baara te Cheikh Baara nitu kurus la mettu leen nitu kurus nitu kurus li muy wax lu bari da ko lii yu ba bëgg ma dugg ci loolu am nitu kurus la jaamu ko du yàlla la. man mi tey bu ma sañoon mu arrêté grève de la faim bi mais Cheikh Bara may ñu ko benn sens jour bi nga ko bàyyee lu tee lu tax procureur tee ko pour lan mais kii ñuy wax ni Aliou Sané de Y'en mais demul kaso mandat de dépôt kenn del dañ ko àtte mais demul kaso man xam naa ay nit ñu bari yoo xam ne tey jii mënoon leen dem kaso mais seen mandat de dépôt li wuñu ko kenn dugal leen kaso da leen bàyyi ñu toog peut-être nag conditions yi mooy da ngay noppi doo wax ci dossier bi doo def li doli mais pourquoi Cheikh Bara war a des ci kaso bi moo tax ñaan parce que mbiri Cheikh boo gisee du mu ci bëgg a sori Moodu dama ci xam lu bari dama ci xam lu bari mais dama bëgg nekk kilifa tuuti parce que mënoo wax lépp mais nañ ko bàyyi mu ñibbi nañ ko bàyyi mu ñibbi parce que aussi yàlla rek moo xam mais ñu ngi koy ñaanal mu gudd fan wér génn ci jàmm màggalu Tuubaa ci jàmm loolu la ñaan te ñu ngi koy ñaan le président de la république Macky Sall di ñaan xalif général de mourides bu ci waxoon mu waxaat ci di ñaan tamit ñëpp ñu taxawaat ci Cheikh Bara doomi réew mi la doomi réew mi la doom waa Touba la te dafa ami mbokk ca Daaru Xuddoos ca Daaru Assane Ndiaye Cheikh Bara mooy Touba nañ ko bàyyi mu ñibbi bàyyi mu ñibbi parce que comme juge téew ko ci dara léegi bu waree def ci kaso bi lan moo fa war a téye ay defante parce que waxoon na lii jotewoon na ak diw ak diw loolu aussi doy na waar. kon euh, mi ngi noonu rek bëgguma ci sori parce que di fàttali tamit ni samedi waa Walfadjri woote nañ quinze heures ci makkaanu groupe Walfadjri pour la libération de Cheikh Bara Ndiaye na ñëpp ñëw journaliste talibé auditeur ñëpp ñu ñëw mbokki Cheikh Bara ñi ko safoo ñi ko doon déglu mbooloo mi bari takku ñu xam ne Sénégal yëpp taxaw nañ ngir Cheikh Bara mën a ñibbisi ci ñun ci jàmm ak salaam te bëgguñu sax egg samedi bu ñu sañoon mu génn tey ba manifestation bi di am ñun looloo ñu gën a ah la man de bu ma sañoon mu génn ñu bañ a egg ci ay manifestation mais nag euh, bu dee nii looloo fi sës aussi dañ koy def di gërëm bu baax El mu du Diouf hmm, di ñuy topp di ko jaajëfal liggéey bi naaj na Ablaye Ablaye Ndiogaan di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kër gi ñu bokk di solution yàlla na suñu borom def jàmm def fi xéewal def fi sutura Omar bun Xattaab Gueye moo doon àddu ngeen ni teewlu di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp ba beneen alxamis incha allah.